What? eh wa eh. ma Adja Mame Faly. Mame Faly ak Fatou Sow. ndeysaan wax dama ma nee nii lii ñu def dañ koy ah ana Moussa. Jaynaba bul dóor kii yow moom Jaynaba Tall bul dóor kii. boo dóor mu jooy ba maam maam de ku la dóorati barki Cheikhul Khadim dina gis sama loxo wallaay muy góor di jigéen nag jërëm caam eh jërëma taal maa ngi sa jërëma caam <laughs>